ñu jagle ko Serigne Massamba Mbacké radiyallahu anhu euh, ginnaaw bi ñu jógee ci pencum Serigne Modou Faty Khary fii ci Daaru Karim ñoo ngi fii nag ci daara yi Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Modou Faty Khary xam naa duñ def rek incha allah dugg sax moom lenn nag ci daara ji ñu bëggoon a ñu nag ci cosaanal daara ji <coughs> euh, muy daara ji ñu nekk euh, mu dikkal ñun ci cosaan bi waaye nag dikkal ñun ci projet yi nga xam ne daara ji am na ko. ngir mbokk yi gis liggéey bi gën a mën a jariñ ci liggéey bi waaye nag gën a xam nan la ñuy mën a def ngir mën a tàbb ci liggéey bi dëgg-dëgg kon seen saare bi bisimilah tafadal asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu leen siyaare di leen sant bu baax suñu Ibrahim ci laaj yi di sant nag suñu kilifa yi fi teew di sëriñ Abdou Khadir Mbacke moom suñu Modou Fari Xari ak seen Modou Kara Mbacké suñ Modou Faty Khary mooy seetu village bi di sant bu baax ci seen teewaay di ko rafet rafetlu xam naa sax waxtu wi daa gàtt eh, sëñ Ibrahim ji ñu ngi ko tàmbalee 2000 dañ sañ ci jëmmi daara rek bi njànge xam-xam ba noppi 2000 ci lañ sos daara fële ca kër ga suñ kër fële ca janatu mu doon daara ju ndaw nag tàmbale rek ci eh, jàngal waa koñ ba ñu jàng ki ñibbi ndax bi njàngee xam-xam ba noppi rek euh, jaaruñ ci lenn du du daara ndax daa nekkoon suñ bëgg-bëgg mu neppee tàmbalee foofu 2000 di jàngale ba 2003 barab boobu xat am mbokkum taalim moo xam ne gedde la dëkk euh, defaroon barabam foofu ba noppi ndaa bëgg ñu ciy jàngale Alxuraan ñu woon jox ma ko ñu daal di tuxoo jënat daal di dem gedde euh, ci boori pénc mi rek pénc bi suñu fàkk bu sumi 2003 dafa jàngale ba léegi bi fi may wax yow daara di maa fa bi ñu demee ba 2007 nag yàlla dogal daara ji xat lool euh, ma ñëw ci Serigne Cheikh waxtaan ceeg moom na ko daal fee ma nekk barab ba dafa xat te donga yi xaw nañoo bari mu bëggoon nag euh, fii ci Daaru Karim sant natt bi ñu tàmm ne natt Daaru Karim euh, mën na ko léegi dama bëggoon barab bu yaatu boo xam ne daal donga yi nañ fi mën a nekk di jàng man ma ah, waaw loolu dama mënut a ñàkk kon da ngay dem Daaru Karim. bu ko defee nga xool yow fu méngoog daara foo xam ne du soreek sa kër ñu jox la foofu yàlla dogal bi ma ñëwee itam mm, waxtaan ceeg njaboot gi barab bii am na feneen luñ ko waajaloon lu mel ne ginnaaw bi nag lañ ma jox fii xam ne fii méngoo naag daara te soriwut ak kër ga itam 2007 tim bañ ma ko joxee 2007 ji tim mm, sëñ Cheikh daan may wax na ma da ngay dem ci sëñ Saliou kon boolu maag ay kilifa dama dañuy dem Sëñ Saaliw kon laaj ko ci ndigal mm, ba xam lu mu ciy wax ñu ànd ak kilifa yooyu indi plan bi ñëw ci Sëñ Saaliw biñ ñëwee tim biñ ko ko waxee mu joxe ci ndigal mun na rafetlu ko lool na nañ ko yaatal amoon ci yéen lool tim nag biñ ñëwee nag ci lañ jàpp bis te ko xeer wi te ko xeer wa boobu Sëñ Seex moo ñëw ànd ak njabar suñ suñ ma sàmb gi yëpp muy te xeer wu mag a mag koo xam ne njabar suñ ma sàmb gi kër yëpp ñëw kilifa yëpp tim kenn ku ne bi nga ñëw ànd ak yéene ànd la nga am àndaale ko ñu tàmbali daara ji nag 2007 ci lañ ko tàmbali di ko liggéey di ko liggéey bi fii ñu toll eh, lu ñu am def ci rek lu ñu nit jox tim ñu defal la ci. jéego yi moom xam naa li ci des sax bëriwut ndax fii ñu toll fii ñu toog nii mooy mbaarum jàngukaay mi xam na moom fii na noppi na moom bâtiment bi ñu jàkkaarloo mooy bâtiment bi nga xamee ne mooy idaara temps am. jëmmi jàngalekat yeeg ak man ak ñaayu ci daara jëpp foofu la ñuy féete bâtiment bi suñ ginnaaw mooy bâtiment donga yi man na juróom-ñeenti nekk mat na ko bâtiment boobu daal moo di suñ cib liggéey ak wan nag yéen ñuy tabax ñaar yooyu daal mooy yi nga xamee ne moo ak gut teñ nekk ci bâtiment bi sax yàlla dogaloon na fan yi xaddoon nañ ko waaye yàlla dogal ngelaw ñëw ba bam naaw ba ñu ngi ci waat ay lijjanti pour war ko xaddaat daara ji tam sëñ Ibrahima daa bari ay yàqu-yàqu ndax bâtiment bi nga gis daanu ñaari yoon waaw ñëwoon nga yoon boobu waaw daanoon daan na ñaari yoon waaye loolu lépp dañuy jàpp dogal bi yàlla la ak liggéeykat yu desee mën a liggéey foofu rek lañ ko wéer loolu moo gën a yéex a liggéey bi nag miir bi nga gis tim daanu na ñaari yoon yooyu yëpp nag dañ koy sant yàlla jàpp ne rek lu waroon am la. Hmm. yoon yi de moom mooy daar ji moom làquwut daaru karam la nekk boo ñëwee boo dee dugg moom nga njëkk a jot ñaareel tam yaakaar naa daara ji nekkut loo xam ne lu nëbbu la ñëpp yëg nañ ko ñëpp yëg nañ liggéey bi tam xam nañ fi mu toll ak lépp euh, am naa bu dee ump la daal bëriwut waaw euh, donte nag boo bëggee ci yoon yi ngay jaar moom weesu ma weesu ma man mii waaw weesu man mii léegi tam am na lu bëggoon wax maanaam jimmi daara ji koy liggéey nii. jimmi sama kër gee daara ma nga fa ndax gere bi ñu fi nekkee tim dañoo wàññi donga yi indi leen fii 2010 dañu fee sos jeneen daara joo xam sama kër laa ko def yàlla dogal euh, mu wàññi dongo yooyu nekk gere andi leen fi ak dongo yi ma joxaat ñu nekk fiy jàng suñ Modou Kara mi joxoon na ay dongo yoo xam ne fa lañ doon jàng suñ Jili Mbàkke mi doomam a nga ne toog ci daara ji la nekk kon njaboot gi moom njabootu suñ Masamba am na ñoom seen doom jaar nañ ci daara ñu góor ñu jigéen jaar nañ fi ba jàng njabarug suñ Modou gitim am na ñoo xam ne jaar nañ fi jàng fi bind kaamil ñibbi eh, ba ci ñi doon jàng de am na ñetti doomi su ñetti sëti suñ Modou yi fi nekk ci bi kuréel bi doon jàng ñenn ñi mokkal nañ ñenn ñi ngi ci yoon yi jàng eh, kon 2010 lañ tàmbali fii ci Daaru Karim eh, indi fii daar di di jàngale jimi daari fi def fukki at waaye daari ji ñu nekk moom sañ guñ ko ji fi ne ñuy jàng sama kër la ñuy jàng ñenn ñi tamit gedda lañ nekk waaye nag dañoo am yéene daara ji eh, balaa yàgg bu ñu màggalee ba noppi daal dañu bëgg mm, sanc ko bu ko defee daara yi yëpp ñu bool leen ci benn barab bi tuxal leen fii bu ko defee yi nekk daara yi suñu Masamba daara ji tamit eh, Serigne Cheikh bi mu bi mu ko sanc bi mu joxee ndigal tamit jàppal na ma ci lool ndax dajee sonn woo ay taalibeem yu mag jox leen ci ndigal pour ñu jàpp ci Euh, euh, jàppale ma ci sax ba ma dem bitim réew woon fi joxoon ma ci demoon ci taalibe yooyu yëpp dama cee da cee da cee sonn jàppale ma ci loolu tim ñu ngi koy ñaanal yàgg fa te wér lool nga jàppale nañ ci lool taxawoon nañ ci daal naka noonu tim euh, programme mu daara ji ñun ni ñuy jàng moom mooy ja Alxuraan nañuy jàng mokkal ko bind ko bu noppee jàng xasida mokkal ko kuréel ko comme ni ñu doon def ba noppi bind ko boole ci ak euh, yarub lislaam ak yarub sëriñ bi mooy yarub murit ak liggéey nag waaw lii daal moo tënk daara ji mooy programme daara ji euh, daara jii nag daara jii nag moom daara yi suñ ma sàmba la daara yi suñ Mor Faati Xarit la waaye daara sëriñ ma sàmba la lépp day delluwaat suñ ma sàmba ndax suñ ma sàmba Euh, daa méngoo war alxuraan ak xasida daa bokkoon ci ab liggéeyam bi ci ëppoon doole mooy alxuraan yor daari kaamil yi ak xasida yi moo tax nag du mën a ñàkk ci njaboot gi ñoo xam ne dañuy féete ca wàllu googa bu féete woon doonte ñëpp waaw doonte ñëpp dañuy liggéey suñu masam wàll gi mu nekkoon nag bëggoon ko du ñàkk ci njaboot gi ñoo xam ne dañuy féete foofu nag moom waaw daara yi de moom xam naa yi ciy jiitu nag moom mooy ci sëriñ Modou yi ndax sëriñ Modou fi ñuy wax Darma am na daara coon am na daara daaru Naim am na daara bu fekkee ci njaboot gi tim nag bi fii ci biir daaru Karim sëñ Seex am na fi doomu ju fi nekk ñu sëñ Xaadim daara ji mag la fi yor moom tur ko jàmbaar la tam pësseef ci daara ji bu fekkee biir dëkk bi la tim nag biir daaru Karim rek ñu nga xamee mooy daaru Karim gii fukki daara ak ñaar mi fi fukki daara ak ñaar yoo xam ne moom ay jàngale jàngkat alxuraan lañ yoo xam ne dañuy jàngale jenn ngi nii sama ginaaw jenn ngi nii sama kanam ak yi nekk ci biir kon fukki daara ak ñaar mu ngi fi eh, yoo xam ne moom xam nañ leen xam ne boo buñ demante ñu wan leen ñu wan la daar yooyu suñu Moustapha moom mi ngi ci kaw tuuti moom kër suñu Massamba gi waaw kër suñu Massamba gi ci kawam tuuti waaw ci daanaka boori kër suñu am saga daal la gën a jegeel waaw foofu la gën a jegeel bu ko defee nag sëñ Ibrahima loolu lépp daara yooyu yëpp nag day daa delluwaat ci eh, moomee rek sëñ Masamba xam nga sëñ Masamba lépp ci moom lay delluwaat waaw léegi daal eh, sant rek di gërëm jabar suñu Modou Faty Khary yëpp nag ñëpp ñuy jàppale ci daara ji ñëpp ci am yéene daara ji daal mi ngi nii daara lislaam la daara sëriñ bu mag bi la daara sëriñ Masamba la ñëpp ko bokk eh, ndax mbirum lislaam la benn sa nag liggéey bi metti na diis na waaye bu ñu sañoon ñëpp jàppale ñu ci ndax mu xam nga ñun njàngal Alxuraan ñoo ko tànn mu mett lool diis lool bari coono lool lu ne fekk ñu ci nag waaye nag loolu dañ koy nangu ndax ñoo ko tànn muy suñu bëgg ba tax luñ ci mën fekk dañ koy dékku waaw moo tax nag ñaan ngeen ñaanal ñu bu baax.